waaw euh, je pense que le cas de l' arrestation de Guy Marius dafay euh, dolleeku ci li nga xam ni dañ ko yàgg nemeeku ci gouvernance su Macky Sall mooy euh, ku ànd ak man lu la neex def du mujj fenn euh, koo xamante ni da nga nekk ci opposition bi wala nga àndoog man ci sama gis-gis boo defee yoon dal sa kaw donte ni li nga def sax amaana tegu na ci yoon parce je pense que aujourd'hui ci li ñu mën a sukkandiku te mu tënk ñun ñëpp te mooy constitution du Sénégal moo may ndawu Sénégal wala citoyen bu mu mën a doon bu fekkee ni da nga am loo xamante ni da nga gis ni àndoo ci ak gouvernement bi nga jug nga fésal ko loolu constitution moo ñu ko may donc tey jii ci lan la ñu mën a sukkandiku ci loo xamante ni citoyen boo xamante ni dafa jàpp ni dañu teg askanu Sénégal dogal boo xamante ni dafay diis ci moom muy feeñal méttitam mécontentement ñu jël ko arrêté ko ci koo xamante ni yorul arme ñu wax ko yorul arme yorul ngànnaay yorul dara lu dul ñëw rek feeñal li nga xam ne ñàkk ànd la ci gis-gisam wala dogal boo xamante ni jël nañ ko ci wàllu wàllu courant mhm. donc ci lan lañ mën a sukkandiku je pense que tey ji arrestation bi amul ci lenn luñ ko mën a teg loo xamante ni mën na tegu ci yoon parce que lépp lu ñu mën a andi ci wàllu yoon constitution dàq na ko mm-hmm. te yaakaar naa ci wàllu loi ak lu mën a doon mënuñu am lu sut constitution ci buñ ci mën a sukkandiku ci ne ci loolu lañ jafalu ñu leen tey et puis deuxième chose vidéo bi ñëpp gis nañ ko yaakaar naa jëmul woon ci ne day gaañ walla day day day xoqatal takk der ngir assemblée lay jublu ñu jël ko néewal ko doole ñëpp gis nañ vidéo yi jël ko dugal ko biir palais donc ëllëg bu ñu indilee ay motif ci nii. ci grille palais bi. waaw ci bu ñu andilee ay motif ci nii da doon euh, néewal doole. Mm-hmm. ab takk der donc loolu dàqu na ndax vidéo fi yaa ngi fi mu ngi circuler mm-hmm. donc deux poids deux mesures boobu encore une fois daf daf ñuy dab daf leen di dab à chaque fois parce que lan réew nga yor ko ci par parparloo ak ñàkk jël sa bopp wane ni askanu Sénégal ñëpp la moom comme ni nga ko waxee 2017 les partisans de Aliou Sall. ñoo taxaw bu buntu gris pale foto yaa ngi fi bi ñu ci paree dañ leen bàyyi nank ñu ñibbi. mais est-ce que cas yi tamit bokk na. mais parce que ñoom ñooñu peut-être même bu dul dara amoon nañ autorisation mais tey jii est-ce que euh, jàpp nga ni euh, Guy Marius li mu def amuñu benn autorisation non attends autorisation lañ invitation la ñu amoon moo tax ñu dem ci euh, palais ba. est-ce que yi wute na cas yi bokk na. non non bul amuñu benn autorisation. si autorisation la parce que invitation la woon. mais kii autorisation de marche la mu ñëw bu ñu lay invité pale ci biir palais ngay dugg mais ñoom invité wuñu leen dañu ne dañuy jóg ndax li ko waraloon mooy président Macky Sall dafa ne rakam du bokk ci liste électorale yi ci ci liste pour euh, législative yi pour doon député ñoom ñu métti lu ko nekk ñoom ñoo ànd ak Alioune Sall donc ànduñu ci décision boobu ñu dem ba biir buñ taxaw buntu palais amuñu auto invitation amuñu autorisation bu ñu amee invitation keñ ci biir palais la nit ki bu lay kilifa pale di la recevoir du la recevoir ci buntu palais ci biir pale bi la léegi te amuñu autorisation donc loolu la kenn mënul layal. di nga ñàkk tegu ci yoon wala ñàkk tegu ci dëgg day métti rek mais kenn mënu ko layal. mais tey jii gii da nga jàpp ne euh, ki nga xamante ne moom moo di agent bi da ko waroon seetaan bàyyi ko mu ñëw laal giri pare euh, giri bi. xam nga gii bi muy jóg di dem. ak ñamu àndal ñëpp lenn moo leen tax a jug te loolu constitution moo leen ko may du lu ñu inventé. mais bu fekkee autorisé wu ñu ko tak da ngay braver affaire yi nga xamante ne ci lan la sukkandiku pour mën a ñàkk autorisé bu fekkee ni tey jii dañu wax ndax yéen yaakaar naa démb déglu ngeen le ministre de l' intérieur ñu interpellé ko lu jëm ci arrêté Ousmane Ngom mais arrêté Ousmane Ngom ab arrêté parce que boo jëlee ci wàllu droit y a ce qu'on la hiérarchisation des normes. Mm-hmm. droit ci wàllu droit ab arrêté mënta jël dessus ci constitution donc gii dafa jël tëral li nga xam ni yoon moo ko ko may sañ-sañam la mooy lan mu feeñal ñàkk àndam ci décision boo xamante ni dañ ko jël teg ko ci loosu sénégalais yi buñ ko bàyyi woon dana dem taxaw buntu pale comme ñeneen ñi niñ lañ ko defee mais moom duñ ko ko may parce jàpp nañ ni àndut ak Macky Sall. alors parce que jàpp nañ ni li muy li li mu li muy xeex arrangé wu leen ñoom donc moo tax ñu jël ko teg ko loolu ak. ñu ma ah, alors Ousseynou euh, euh, euh, bokk ma ci yaakaar naa ne moo gën bokk naa ci wala def naa ko li nga xam ne moom la pouvoir def ñu bëri condamné ko lu mel ne institution lu mel ne palais de la république est-ce que yoon la nit manifester ba dem ba ci buntu gris bi. Euh, yow xalaat nga ne. xam nga amul euh, je pense que démocratie yu mag yi nga xam ni ñoom la ñuy inspiré wu ci wàllu tëralin ak ci doxalin. Mhm. amul kenn koo ci gis ku la ne dañ la tare manifester ci buntu pale États-Unis bii ngay gis nga xam buñ dee buñ dee wax ci en terme de référence ci démocratie mais boo demee Washington tey jii di nga gis buntu euh, Maison Blanche des citoyen américain yu taxaw yor seen pancarte te bu yaakaar te yaakaar naa ci àddina bi bu amee pays boo xamante ni dafay saytu ci ni mu gën a sewee lu jëm ci wàllu sécurité njiitam États-Unis kenn mënu leen ci mais buñ ko demee ba permettre ko seeni citoyen c'est parce que loolu la leen seen constitution may fii nag mënuñu jël constitution may la bu fekkee ni yow tey jii yaa nekk ci nguur gi nga sukkandiku ci benn arrêté boo xam te ni tey ñoom ñi du sukkandiku ci arrêté boobu barke Demba Ndiaye ñun ñoo àndoon di ko xeex. donc da nga jàpp mbir yi jarul woon muy yegg ba ci kanamu procureur ñuy déférer ki nga xam ne mooy. Guy Marius Sagna mais est-ce que les militants de Aliou Sall est-ce que les étudiants qui ont escaladé. les grilles du palais ont été convoquées par le procureur. Il deux poids deux mesures. mais évidemment parce que ñàkk a yoon. mooy feeñ ci nguuru Macky Sall ak ci actam yu muy teg te encore une fois feeñoo te li gàq la bu fekkee ni tey jii dañuy réclamer wu démocratie ci Sénégal ñu toog Sénégal nit am sañ-sañu constitution may pour mu manifester. passivité parce que yorul demul pour xeex demul pour xuloo dafa ñëw pour feeñal mécontentement am. Mhm. bu fekkee ne nag dañ koy bañ ci Sénégal te ñun réewum démocratie la kon nag nañu xoolaat suñu taxawaat te ñu wax ñu ci ban réew lañ nekk mais du réew démocratie. alors li nga xam ne moom moo jëm ci rébellion ak violence contre un agent bi nga xam ne dans l' exercice de ses euh, manifestation sans autorisation attroupement maanaam chef d' inculpation yi dis na tey euh, ci kaw manifestation boo xam ne yow da nga ko minimiser jàpp ne ah, am na ci droit euh, tey lan nga gisee loolu loolu nga xam ne ay chef d' libération la ñu téewagum ko ci li nga xam ne moom mooy mbirum gi Marius Sagna ak ñi mu ci àndal xam nga ci Babacar Diop bu FDS ak ñeneen bu fekkee nii dañ ne dafa euh, lottal wala jaay doole agent vidéo yaa ngi fi vidéo yi mu ngi circulé ñëpp gis nañ ni gii ba muy dem pale giri ba la jublu jubluwul ci benn agent au contraire dañ ko jàpp ñoom ñoo ko jàpp womat ko dugal ko ci biir pale bi mais attaqué wul benn agent loolu c'est fallacieux du argument buñ ci mën a sukkandiku mais dinañ dal ci kaw gii parce que ku mel ni Guy Marius Sagna wala professeur Babacar jóob ak ñi nga xam ni dañ di ay sénégalais te xeex ak ak yelleef défendre seen peuple moo leen ñor nguuru Macky Sall chaque jour day dal ci ñoom. donc vous trouvez que c'est purement politique. évidemment c'est c'est pas politique c'est politicienne même à la rigueur. alors bu ñu ko mënee am beneen euh, lecture c'est-à-dire côté sécurité marche boo xamante ne la dañu leen ko interdire mais réussir nañ à déjouer plan wu force de sécurité yi ba egg ba ci grille yu palais yi est-ce que euh, wàllum kaaraange également waruñu ko xoolaat. xam nga euh, ñun amuñu problème ak les forces de de défense et de sécurité parce que ku ci nekk yaa ngi def sa liggéey ni mu waree. ñun dafa am gii dafa am ak ñi mu àndal dafa am décision ba dañ ko teg ci askanu Sénégal ñu jug pour xeex loolu li ñuy war a seet ndax yoon may na leen ko wala yoon mayu leen ko li ñu gis mooy constitution Sénégal may na leen ko. fii ci territoire Sénégal amul fenn fu ñu war a mën a interdire nit ngir mu manifester donc li mu def dafa sukkandiku ci yoon ci droit lu ko constitution may mu def ko. kantaan nag am nañ autorisation amuñu autorisation foofu nag ci wàllu droit la wàllu yoon la ñi nga xam ne ñu ngi jàngale droit ñu ngi may seetaan est-ce que ab arrêté mën na ëpp doole constitution wu réew question boobu na ci doon ñi nga xam ne ñooy jàngale yoon. tontu kon vous trouvez qu'il est temps que euh, ñu euh, képp koo xamante ne doomu Sénégal nga nga bëgg a manifester moo xam lan moo tax dañu la war a bàyyi nga def ko ci moment bi mu la soobee ak fi nga ko wax a defee. mais parce que loolu lay rôle état gis nga tey jii bu ñu interdire manifestation li ci état di dépenser ci lacrymogène yi muy dóor ak essence bu muy def ci oto yi ñuy dàq ji nit ñi di leen topp loolu boo ko calculer. ak encadrer manifestation boo xam ne ñaata manifestation ñoo fi am ñu encadrer ko. Mhm. te amul benn problème amul benn coow nit ñi ànd ak force de l'ordre yi respecter heure ñibbi seen kër donc je pense que aujourd'hui ñàkk autoriser manifestation c'est ça qui nous coûte beaucoup plus cher. Mhm. que autoriser manifestation bu dee trouble à l'ordre public public moo tax ñu bañ. Eh, nangul ñu pour ñu marche je pense que tey jii ñàkk ko autorisé mooy andi même trouble à l'ordre public mais que tamit démocratie def li la neex aussi. non démocratie mënta ànd ak def li la neex ñun nous sommes euh, ay nit lañ ñoo xam te ni dañuy tënku ci li yoon may gis nga Guy Marius Sagna ak ñamu àndal bu fekkoon ni yoon mayu leen ñu marche duñ ko def yoon da leen ko may. Mhm. démocratie dafa ànd ak organisation mais démocratie àndut ak répression des libertés. parce que liñ fiy gis lii ñu gis nii du démocratie lii répression des libertés te nag répression des libertés ci dictature lañ ko xam mais du ci démocratie. alors suñu second invité moom itam yegg si na waxoon nañu leen ko ci ndorteelu émission bi il s'agit de Khafor Touré bokk ci mouvance présidentielle bi ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay bu baax di am mbégte euh, tew fii ci émission bi di nuyu ñëpp di nuyu euh, téléspectatrices ak téléspectateurs yu yu Sen TV yi seetaan euh, Sen Show <laughs> ah di jégalu encore tarde bi xat-xatu jamono yi ak liggéey bi. on comprend alors euh, dab nga ñu ñu ngi doon waxtaanee ci lu ñeel Guy Marius Sagna ak itam ñooñam nga xamante ne dañu leen teg loxo ginnaaw bi ñu doon manifester ci buntu euh, pale bi euh, tey ban jàngat nga ci am parce que bu ko ñuy jàppee hors la loi am na quand même ñu ko jàppee héros. dama jàpp ni ci république lañ nekk ci état de droit lañ nekk république suñ koy wax. wax état de droit wax état wax état de droit mooy ñun ñi ci dëkk ñëpp ku ci nekk am nga ay devoir am nga ay droit euh, constitution bi dafa am lu mu wax loi dafa am lu mu wax Sénégal euh, ñëpp nangu nañ ni euh, pays de liberté la pays de droit la démocratie la mm-hmm. amuñu tey ci Afrique fu ñuy naataable wala ñu ñuy jox exemple Euh, lu dul ci li nga xam ne ni mooy modèle lañ en terme de de alternance en terme de de gouvernance tey boo xoolee sur le sur la scène internationale euh, modèle ñaari modèle yi ñuy joxe généralement Sénégal la Rwanda donc je pense que bu ñu fi nekkee ñun nekk ay citoyens dañu am ay droits mais am ay devoirs devoir bi nga xam ne ni citoyen daf ko am mooy respect des lois. jàpp naa ni si <clears throat> événement boobu ngay wax euh, ñëpp xam nañ ni marche donte si constitu droit constitutionnel te du sax autorisation déclaration préalable mais luy périmètre. palais présidentiel pour des questions de sécurité et pour des questions de sécurité nationale. parce que mm-hmm. parce que palais présidentiel. mais non avant même palais bi euh, wax nga ne euh, déclaration. non dama ne xam nga Sénégal. Mm-hmm. depuis deux mille dix fin deux mille dix début mm-hmm. deux mille onze am na lu ñuy wax arrêté Ousmane Ngom. buy interdire marche ci benn périmètre xam nga euh, nit. mën na marche mën na am lu ko metti mu wax ko kenn terewul loolu ci réew mi mais dem fekk gendarme li nga xam ne ni mooy l'incarnation parce que ñun état lañ république lañ. ki dëkk ci biir pale bi tey président Macky Sall la tudd démb Abdoulaye Wade la tuddoon suba keneen lay tudd keneen keneen lay tudd dafa am loo xam ne ni c'est sur des questions de principe parce que boo ko défendre tey suba nga nekk ci pale bi. doo nangu pour la sécurité du président de la république ñëw fekk garde rouge ñëw ñëw fekk ay gendarme yu monté nga ñëw di leen attaqué pour euh, coup d'éclat. est-ce que bi na loolu noo mat na mais. Euh, parce que xam nga Sénégal Sénégal mu mat xam nga Sénégal mu mat. Uh-huh. mais loolu li mu def ku nekk mën na ko def. alors c'est grave parce que le Sénégal dans les pays africains bokk na ci réew yi nga xam ne ni interdiruñu circulation piétonne. ci périmètre palais présidentiel. Mhm. am na réew yoo xam ne nii bari nañ. am na bari nañ réew yoo xam ne nii à cinq kilomètres du périmètre présidentiel kenn du fa circuler. Mhm. tey yow boo jógee fii léegi bu la neexee boo demee nga romb buntu palais à n'importe quelle heure ba trois heures du matin bu la neexee nga nga nga nga dox donc fu loolu amul du question sécurité c'est-à-dire que man su ma ñëwee individuellement wala ma ànd ak sama ñetti xarit ñeenti xarit ñu bëgg def coup d'éclat mun nañu ñëw ba turul mën nañu ñëw ba ci garde rouge bi ñu def suñu coup d'éclat fekk def nañ loolu si loolu c'est pas une de sécurité c'est une de bon sens dama jàpp ni dafa am signaux yoo xam ne nii waruñu ko joxe mën nañu politique mun na ñu am revendication ñu defee ko ci anam yi mais ñu def ko dans le cadre du respect des lois alors, et règles alors sànq ñu ngi wax ñi nga xam ne ay ndaw lañu. Mhm. bokk ci pouvoir manifester ba ci buntu palais de la république. Mhm. après dara fekku leen si tey Guy Marius Sagna ñu nar a teg quatre chefs d'inculpation ci kawam. loolu du nekk euh, euh, du euh, deux faces maanaam interdiction de manifester boo xam ne ñi faree ci nguur gi am nañu droit def bu fekkee dañ leen ko tere ñi farewul ci nguur gi ñoom amuñu sañ-sañ boobu. man bi ma fàttali ko manifestation bi ay jeune pouvoir bi def dem ci biir palais présidentiel bu ñuy waxee dëgg mooy ñetti jeune dañ leen ci jàpp dem nañ ba prison benn xale bi mu ngi sant John mu ngi dëkk Dakar Plateau bi ma fàttali ko xale yi nga xam ne nii COJER la ñu bokkoon dem ci grille présidentielle attaqué gendarme yi dañ leen jàpp dañ leen tëj dañ leen defeere c'est ça la vérité mm-hmm. te loolu xool leen archive yi présidentiel c'est symbole la nga bokk pouvoir bokkoo pouvoir képp ku ko def dañu la war a sanctionner nga bokk pouvoir ak bokk bokkuloo pouvoir parce que ñun aussi les responsables politiques ou les hommes d'État ou les hommes politiques dañu am devoir d'éducation citoyenne les partis politique dañu am mission d'éducation militante et citoyenne dafa am loo xam ne nii du question positionnement politique du question du question fii laa faral dama ne dama li ma lay wax question de citoyenneté la alors xam nga citoyenneté non nañ leen wax gis nga médias yi mhm. ñun ñuy wax ci médias yi ñëpp dañu am nañ ko wax suñu rakk yi parce que dañu nekk ci pays yoo xam ne nii mhm. niveau d'analphabétisme bi am na nit lu muy gis ci nit mu def ko mu jàpp ni dëgg la du dëgg mhm. loolu dañ koy yi nekk école primaire ñu leen di jàngal civisme. ak citoyenneté dama jàpp ne li mu def ak Babacar Diop ak ñi ànd ak ñoom du yoon. mais ils le xam nañ ko mais xam nañ ko xam ne xam ne bi ñu koy def xam nañ ko xam nañ li leen ciy fekk. mais alors euh, en 2012 dañu gis ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall euh, moom jamono jooju nga xam ne candidat la woon dem na ba wax ne bu fekkee ne président war Wade bañ nañu manifester nañ ko déloger palais vidéo bi daanaka wër na ñu koy teg est-ce que tey bu li amee du nekk ne ñoom ñi nga xam ne bu ñu nekk euh, ci opposition bi dañuy wax lu mel ni ñoo jox xale yi euh, fit ba ñuy def ba ñuy def lii. xam nga déclaration boobu su fekkee ni am na du déclaration boo xam war na jóge ci responsable politique et man ma dégg déclaration boobu et ñu ak encore que déclaration publique teewul yow jóg ñëw ci grille palais jàkkaarloog GMI di jàkkaarloog garde rouge di xeex ak garde rouge. et en 2012 devant l'Assemblée nationale Mame Mbaye Niang et consorts devant les grilles de l'Assemblée qui une institution aussi. c'est pas normal et c'est pas normal et c'est pas normal. te boobu li fekk tey Guy Marius Sagna fekku leen ci foofu laay wax dama ne dama ne dama ne assemblée nationale du présidence de la république. du palais de la république c'est une institution quand même. mais mm-hmm. la république. d'abord un première précision de taille. tout à fait du palais de la république. Mm-hmm. bokkuñu. mais institution la ba la dama ne déggoo li ma la dama ne la sur des questions de principe ñun ñi nga xam ne nii ay hommes publics lañ ay hommes politiques lañ quel que soit fu ñu toll. dañu war a opposé wu wala ñuy gérer am exemplarité dama ne institution yi dañu am mission d'éducation citoyenne ci xale yi ci jeunes yi ci ndaw ñi képp koo xam ne nii yaa ngi défier institution bu mu ti nekk ci biir réew mi nekkuloo ci yoon. jàppoon ne ak nguuru Macky Sall dafa bëri restriction des libertés ñu bëri daanaka amuñu sañ-sañ manifester yu bëri li nga ko waxee déclaration lay doon mais dañu koy dañu koy tere ah ñenn ñi yenn saa yi grenades yi dóor yi lu nekk feeñ na fi ci nguur gi. non non non xam nga de 2012 à maintenant non moi fii li ma fi gis le principe dans notre pays sincèrement le principe dans notre pays mooy euh, c'est un principe démocratique. marche dañu ko accepte marche dañ ko autorisé loolu mooy principe ki nga xam ne nii nag dafa jóg marche taxu ko taxu ko jóg wala yàq moo ko tax a jóg wala pour def buzz wala pour def leneen kooku beneen affaire la mais mënuma sénégalais je pense que mënuñu ci bopp sénégalais yi que le Sénégal est en crise wala Sénégal dictature la parce que les sénégalais yiy jóg di xëy di dem di liggéey di wàcc di dem seen kër di vaquer tranquillement à leurs occupations bokku ñun ñu ndaw ñi nekk ci biir partie politique di min di di di di di organiser wu di activer wu di wax ci médias yi donc le Sénégal mënuñu wax ba Sénégal nekk dictature kenn mënul imposer dictature Sénégal seulement Sénégal état de droit la ku mu neex nga nekk ci yoon respecté yoon doxal yoon. état de droit ou réprime les manifestants noonu noonu nga gisee yow. mais une manifestation non autorisée. est-ce que jotul ñuy autoriser yëpp. pour éviter justement ce genre de situation wax na ko à l'entame de ses propos que ne la war a doon. donc une déclaration n'est pas une demande d'autorisation. fii les manifestations sont autorisées mais déggoo li ma la xam nga principe question de principe xam nga bu ñu waxantee dëgg. Mhm. vraiment c'est des débats yoo amul solo ci réew mi. ah oui vous parce que xam nga magum jëmm majeur. Mhm. bu jóg nga xam loi ak réew mi lu mu wax y a un arrêté ministériel qui interdit toute manifestation ci benn périmètre yow nga laxatu ñëw ba ci biir périmètre dem sàng jeunes. arrêté moo sut constitution. mais arrêté sut constitution. voilà moo tax ma lay laaj loolu arrêté acte réglementaire la. Mhm. arrêté acte la da ngay ñëw am constitution am les lois. boo jógee ci loi dafa am hiérarchie décret dafa am ay acte réglementaire décret acte réglementaire la buy organiser loi di organiser constitution constitution bi dafa am lu mu wax mais constitution bi la muy wax loi moo koy yeggali décret yeggali ko arrêté yeggali ko ni constitution bi lii mu tabax nii la nii la war a doxee noonu noonu la état di demee noonu la loi di demee loolu nag la la constitution may ñu ñëw arrêté wax ko bu fekkee ni da nga jalgati mais da nga jalgati yow nga xam ne nii moom mooy sa charte donc loolu vraiment euh, te bon Guy Marius man xam naa ko. mais li muy def du du du du du du. mais tey jii euh, ni mu euh, yegsee fi nga xamante ne moom moo di ci palais bi proposé woon nañ le chef de l'état ngir mu appliquer loi bi nga xamante ne moom mooy interdit ñenn ñi ñu dox ko est-ce que jàpp nga ne loi boobu dañ ko war a mën a appliquer fii ci réew mi bu fekkee ne am na ñoo xamante ne mën nañ braver ba yegsi foofu ci gris palais bi. xam nga bu ñu foowee loo xam ne nii amul réew moo dem ci àdduna mu nekk fowukaay palais de la république soo demee ba mu Amérique dafa nekk ay zone de sécurité defence de haute sécurité boo demee Élysée nga dem Champs-Élysées ñëpp fay jaar mais boo demee palais de l'Élysée am na c'est des zones de réew moo dem parce que ki nga xam ne nii lu ko dal dafay impacter ci quotidien ak dund 15 millions 20 millions de sénégalais. Mhm. kooku c'est des questions d'intérêt national. cest à que bu ñuy bu ñuy caaxaanee di waxee loo xam ne nii vraiment mënuñu sax imaginer conséquence yi ah, donc là c'est du ñu jouer mhm. réew moo dem ci àdduna duñu fowee nañu politique nañu exprimer suñuy droit nañu exprimer suñu opinion am nañ liberté exprimer suñuy opinion mais bu ñu fowee li nga xam ne nii kenn du ko fowee parce que fowee ko suba mooy jur musiba ci biir réew mi musiba boo alors bi nga xamante ne dafa nekk ci dëkk boo xam ne dañu xëy ne dañuy yokk li nga xam ne mooy courant bi à partir du premier décembre mu taxaw ah wax ne dafay manifester yow da nga jàpp ne. mais personne n'interdit ça mais parti démocratique non non na ma wax loo ndax amul sañ-sañu dem manifester bul ma wax loo lu ma waxul. Mhm. dama ne la le droit à la marche est un droit constitutionnel reconnu dans notre mhm. ku mu neex nga jóg nga marche am lu la neexul nga def déclaration préalable nga marche. Mhm. loolu kenn terewu ko ci réew mi. dama ne ku mu neex nga def ko. Mhm. mais dama ne ki nga xam ne nii jóg nga nga xam ne yaa am na at réglementaire mu xam ko xam ne périmètre bi dañ ko tere depuis lu mat fukki at. Mhm. nga buruxlu kenn yëgu ko ñëw attaqué loolu dama ne infraction la. d'accord alors euh, Ousseynou bëggoon naa rek euh, li nga xam ne moom mooy manifestation bi plateforme la ay mouvement citoyen euh, parti politique yi même si ñu bëri jàpp nañ ne la plateforme dañu gis ne coloration bi am na am na politique ndax am na ñu ci nekk ñoo xam ne Guy Marius Sagna mooy yoroon organisation Sonko président est-ce que du continuité boobu moom moo am du Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñoom ñooy wàcc sur le terrain pour peut-être li nga xam ne moom la fi nguur gi di teg fois ñu koy yëngal. faut def amalgame boobu parce que <clears throat> nu sommes des entités distinctes. Mhm. ku ci nekk ak lii la ak texte yi la organisé. ñun bu fekkoon ni dañuy def manifestation dinañ def appel wax nit ñi que ni dañuy def manifestation. Mhm. donte ni nag nous sommes partie intégrante de aar li ñu bokk. mais du amalgame nga avant tout chose Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal c'est des citoyens li ñuy xeex citoyens yi ñoo ko moom mooy dañu yokk prix courant. moom mu jàpp ni yokk bi teguwul ci yoon sañ constitution Sénégal may na ko ngir mu feeñal mécontentement am nañ ko organiser mu feeñal ko te mu ñibbi. dañu gis ne combat bi tout le temps daf ciy dem même buñ ci woowee sénégalais yi sénégalais yi du ñu génn moom mu dem ci ba jeex ñu bari di yaakaar ne ndax dafa am ay politique yoo xamante ne ñu ngi nekk ci ginnaaw c'est une question donc loolu lan nga ci. man damay profiter euh, ci mm-hmm. occasion pour rendre ko hommage parce que je pense que bi ma ko xamee tey matul matul mm-hmm. ma émerveillé ci conviction. y' a pas que courage mais courage conviction moo ciy jiitu. d'accord courage du taxaw ne maa sañ lu kenn sañu non non est-ce que li ngay def nii gëm nga ko te dëgg la ci yow. Mm-hmm. te yaakaar naa ku xool gii Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal di xeex loolu mu ngi ci ñoom. Mm-hmm. gii dañ ko war a rendre hommage mais li muy xeex sénégalais yi ñoo ko war a xeex parce que li muy xeex noonu moom lay toog moom la ñuy toog ci kër yi di ko dégg moom nag ak ñi mu àndal xëy na jàpp nañ ni mën nañ ko feeñal mooy ñu taxaw manifester. xëy na keneen jàpp na ni moom am na beneen moyen bu mu mën a def mais li ñu xeex xeexu sénégalais yi la Guy Marius xeexul xeexu boppam. je pense bu ñu gisee sa leader dem fi nga xam ne mooy commissariat central le samedi pour di ko rendre visite mu nekk kenn ci leader politique yoo xam ne ñoo dem foofu est-ce que du indi xel ne moom euh, peut-être mu ngi ci biir wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy jox xale yi fit ñu def loolu ci ci la bokk. je xale yi excusez-moi mooy jox ñoom nga xam ne ay jeunes la fit ñu dem euh, bokk ci manifester. je pense que le président Sonko est assez moom nitu principe la tey jii bu fekkoon ni euh, du def combat par procuration lii laa bëgg xeex kaay kaay ma jël nit mu xeexal ko ko non non il va pas faire. Mm-hmm. mais dafa yenu maanaa ndax seetuwul Guy Marius Sagna kese mais ñu ñu jàppandoon mm-hmm. ñëpp. Mm-hmm. donc leader politique la acteur politique la te xeex injustice moom. fu mu la mënti fekk ak ñaw ñañ jàpp boor bu ñu mën a nekk bu la ko sa jot mayee war nga fa teg tànk donc keroog noonu la woon mu nekk ci marathon budgétaire mu génn emploi du temps may ko ko mu dem seeti ko donc je pense que li mu def acte citoyen la avant d'être un acte manifestation bu mel ne yokk yokk courant bi gisuñu Sénégalais yi génn yow loolu ban lecture nga ci am plateforme bi gis nañu ne manifestation bi ça a été très timide amul mbooloo bu bëri euh, lan nga amee ci lecture loolu. waaw man je dirais pas que sénégalais yi génnuñu donc li ñuy njëkk a seet mooy est-ce que décision bi sénégalais yi ànd nañ ci wala ànduñu ci. Mm-hmm. mais je pense que pour la majorité ñëpp xam nañ ni décision bi du sénégalais yi du lu sénégalais yi ànd. Mm-hmm. donc niñ koy exprimer nag moom laay wax. ku ci nekk ak sa façon am na koo xamante ni xëy na tey jàpp na nii mën na manifester am na koo xamante ni xëy na jàpp na ni feneen la ko mën a defee encore une fois il revient au peuple sénégalais et aux de définir leur forme de combat mais ce qui est sûr et certain que dañ leen woo pour ko ñu taxaw. Uh-huh. parce que lii narul dàq tey yokk gi moom bu buñ jugee ci bi yaakaar naa dinañ dal ci beneen. alors tudd nga ko léegi marathon budgétaire bi fa la ñuy euh, jàll ak yow euh, Sénégal ay at a ngi nii gën kaa néew 4000 milliards lañuy am comme euh, comme budget mais secteur boo dugg daanaka fekk fa ay difficultés est-ce que tey jàpp nga ni peut-être ni ñu koy utiliser baax na. waaw euh, fi may tàmbali ci question boobu c'est pour euh, andi benn euh, commentaire par rapport ak propos Khafor mhm. je pense que faut pas que ñu inciter état pour mu dem ci ay régime d'exception ay mesures d'exception donc baaxul sénégalais yi pale lu mu nekk nekk zone de sécurité lu fa Macky Sall dëkk dëkk Macky Sall sénégalais yi koy fay. palais bi li koy entretenir xaalis sénégalais du xaalis Macky Sall donc je pense que nous devons minimum de un minimum de considération et de respect envers les sénégalais. nga juddoo ci dëkk ñu ne la fii waroo fi jaar parce que diwa fi yeewoo je pense que yéen maanaam te diw moomu kat fin du mois yaa koy fay. fa mu dëkk yaa koy fay yaa koy entretenir di entretenir njabootam donc mesure d'exception yooyu euh, 4 000 milliards est-ce que aujourd'hui c'est assez suffisant est-ce que aujourd'hui mën nañ dem ci lu ko ëpp je pense que day jaadu pour ñu relever problème bi ci njëkk par rapport ak collecte des recettes lu jëm ci wàllu état euh, tey jii nii boo jëlee taux de pression fiscale buñ ko jaawale ak taux d'imposition taux de pression fiscale au Sénégal ça tourne autour de 17 pour cent or la norme communautaire est de 25 cent aujourd'hui je pense que mën nañ puusaat euh, euh, taux boobu noonu àgg ci 20 pour cent pour que ñu mën a collecter suffisamment de recettes waaye collecter impôt dafa am ay formes du fekk sénégalais bi néew doole ngay jël ci moom. je pense que ak augmentation yi ci lañ jëmaat dañuy li sénégalais am ñu ngi koy jëlaat seen poche mooy fekk ñi nga xam ni dañu war a fay nga fayeeku leen li ñu war a fay nga fayeeku leen ko tudd nañ fi jamono yooyu ci ginnaaw le cas de. de l'impôt des députés gis nañ eh, ay députés yuy fayee ko 1500 francs est-ce que jaadu na ci koo xamante ni salaire netam 1 million 300 ñu ko ci dagg 1500 pendant que enseignant bi nga xam ni day bàyyi këram bàyyi jabaram bàyyi njabootam dem ci zone yi nga xam ni moo gën a reculer ci Sénégal bu ñu ko dee fay mil ñuy dagg à peu près 80 à 90 000 ci salaire am est-ce que jaadu na. performance yi nga xam ni mooy euh, structure yi nga xam ni ñoo war a collecter impôt est-ce que nañ. parce que bu fekkee ni tey jii da nga jël lu jël lu mel ni euh, impôt et domaine nomination directeur politique directeur ba fa nekk day politique ñay liggéey ca domaine ka nga tagg ka nga ka nga fa teg dafay politique bu élection jotee ñu bàyyi li ñuy liggéey yépp nekk ci campagne électorale est-ce que boobu administration par rapport ak service de collecte collecte yi est-ce que dina performant donc yooyu ay laaj la yoo xamante ni war nañ ko fa teg te je pense que dund nañ ko suffisamment ndax gis nañ fi élection jot euh, seen seen njiit ne leen tëj leen bureau yi te wàcc ci terrain bi xam nga ko boobu administration bu fekkee nii da nga koy fixer ay objectif du administration boobu moo koy moo koy atteindre maintenant fu fekkee nii nag yow fi nga war a collecter impôt parce que état levier yi mu am pour mën a financer économie ñeent la euh, benn bi impôt la beneen bi lu jëm ci wàllu ressource naturelle beneen bi euh, lu jëm ci wàllu comment dirais euh, lu jëm ci wàllu devise monnaie levier monétaire ak la li nga xam ne ay wàllu don la ak yooyu donc prêt prêt exception la mm-hmm. c'est-à-dire que nit balaa ngay génn di lebi war nga sukkandiku ci li nga xam ni moom la la sa dëkk potentiel bi sa dëkk am pour nga mën a collecter suffisamment de ressources pour financer say say programme mais boo xoolee ñeent levier yooyu bu ci nekk Sénégal tey jii euh, amu ci taxawaay bi war boo jëlee wàllu impôt tey jii ñoo ngi dagg ñi nga xam ni néew du doole lañ teg leen ay charges pendant ce temps ay ministre ki député ñoo xamante ni liñ leen war a fayeeku ci impôt fayeeku wuñ leen ko di bàyyi ay sociétés yoo xam te nii. Euh, dette bi dette jàpp ne dafa bëri. le Sénégal ci ñëw lu jëm ci wàllu euh, niche fiscale yi wala entreprise yi di gedd ay euh, comment dirais-je. nu mu tudd redressement war a war a kii encaissé ay redressement fiscaux nga baal ko parce que lan defal ko amnistie fiscale parce que que jiite entreprise bi wala ñiy liggéey ak moom dañu bokk ci nguur gi lu jëm ci wàllu monnaie Sénégal la monnaie amu ci amu ci amu ci sukkandiku ba tax mu mën a générer ay ressource loolu yëpp nag bu matul li ngay dese mooy lebi mhm. te yaakaar naa euh, tey jii bu ñu xoolee encours de dette qui tourne autour de mille euh, soixante seize milliards yeah. 53 pour cent du PIB donc euh, dalul xel. Mhm. donc Sénégal leb na ci ndoddu askanam 8076 milliards yoo xamante ni. sénégalais yi ñoo ko war a fay du Macky Sall moo ko sew la mais ñun ñii néew du doole ñoo ko nar a fay. <laughs> alors Khafor wax rupture ñu bëri daanaka jàppoon ne ni ko waxee woon la parti la patrie avant le mais ni nga xam ne moom la ko Ousseynou waxee lu ci bëri daanaka ñu politiser ko ci li nga xam ne moom mooy euh, gestion bu président Macky Sall teg ci it li nga xam ne mooy bor bu bari bi te terewul secteur yi tey nga xamante ne ñii nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat ñoom ñooy waa SDE banque seen loxo ne ñooy syndicat investissement bu bëri daanaka euh, li nga xam ne mooy climat social bi tàmbal tàmbalee yëngatu lan mooy lan moo ko expliquer lu nu mel lu ko indi d'abord. bon je pense balaa muy ñëw ci loolu parce que da nga da nga caractériser. Mhm. la gestion. la mhm. gouvernance d'abord da nga caractériser avant ngay poser avant ngay poser. avant ngay avant ngay poser avant ngay poser sa question. dama jàpp ni euh, gis nga Sénégal. tey unanimement mun nañu mun nañu ñun fouetter suñu bopp parce que bon on est un peu sévère contre nous mais tey en matière de de gestion en matière de gouvernance en matière d'abord d'assainissement du cadre macroéconomique en matière de tenue euh, des finances publiques tout le monde tey interview présidente euh, Fonds monétaire international moo ci xam nga ki la gën a mën a arbitrer mooy ki nga xam ne nii dafa am neutralité absolue par rapport aux question internes ak li xew ñu ngi koy door a fal FMI Sénégal la ñëw def première visite en Afrique première visite en Afrique nii man ñu ngi may door a fal pays de l'Est laa jóge FMI sama première mission maa ngi ko ñëw def Sénégal parce que tey exemple en termes de tenue des finances publique exemple ci économie am ni muy taxawee et pourtant Sénégal réew la ci ensemble sous-régional ci ensemble Afrique ci àdduna tey toutes les tendances c'est vrai on ne peut pas mënuñu comparer suñu économie ak économie réew yu réew njëkk yi économie yu mag yëpp. croissance stable croissance relative lañu am bu ndaw a ndaw a wala ñu nekk ci phase seen croissance di wàcc. Mm. seen i indicateurs ñu ngi wàcc ñun Sénégal sur pour la première fois ci juróom-benni at ñu ngi am taux de croissance bu yokk suñu budget suñu koom-koom alalu réew mi mu ngi yokk yow yaa ko wax sànq tey budget bi yegg na 4200 milliards. 2012 budget bi mu ngi woon 2300 milliards. mais est-ce que sénégalais bi est-ce que tamit sénégalais bi nga xamante ne mooy le sénégalais lambda mu koy sentir. mais le mu ngi koy sentir bu baax a baax. Mm-hmm. comment ça parce que budget mu ngi mel ni suñu kër rek ñun ñu suñu kër ku ci nekk sa kër li ngay fayee li nga am li nga xam ne nii mooy alalu réew mi ak koom-koomu réew mi boo yeewoo am na lu jëm courant am na lu jëm ci ndox mi. am na lu jëm éducation ci sant ci ci ci ci njàng xale yi ci biir kër gi am na lu jëm ci li nga xam ne nii moom mooy fay yenn charge kër gi am na lu jëm ci essence am na lu jëm ainsi de suite budget nañ ko li nañ ko xaymaa loolu loolu ñu nekk réew mu ndóol di aspirer ci émergence ak développement budget bi mooy lan tey boo xoolee li nga xam ne nii moo jëm ci promotion socio-économique de la jeunesse mooy xëyu ndaw ji tey ci effort ci budget bi plus de cent vingt milliards def nañ ko ci lool mais ba tey chômage rek boo déglu non ma ni amul réew ci àdduna bu amul chômage. non ça on a discuté non mais dama ne amul réew mu amul xam nga li am solo mooy est-ce que am na ay politique publique efficace yuy jël en charge problématique bi est-ce que am na moyen ci doole réew mi allocation de ressources conséquente est xaalis bi fi ñu koy def mu ngi jur résultat yi dama ne mënuñoo taxaw amul réew mu amul chômage Sénégal am na chômage xam nga lan moo am solo. Mhm. xam nga lan moo am solo est-ce que Sénégal am na politique publique d'emploi des jeunes. est-ce que Sénégal am na politique d'insertion active des jeunes est-ce que tey ci budget bi ñaata moo ci dem ci fànn boobu ñu ne plus de 120 milliards mu ngi dem ci loolu est-ce que Sénégal mu ngi dawal mu ngi tabax ay infrastructure am est-ce que Sénégal am na luy dem budget édu ministère de la santé est-ce que mu ngi yokk ci budget bi plus de 200 milliards ñu ngi jëm ci ci faj gi est-ce que tey Sénégal investissement xam nga ñu ngi wax ñu ngi bor mhm. ñu ngi leb tey Sénégal. mais loolu nga joxe muy ay chiffres xafoor loolu nga joxe non loolu nga joxe ne budget bi mi ngi yokk il faut ñu poser question loolu nga joxe ne budget bi mu ngi yokk jëm ci wér gu yaram gis nañu ne Sénégal daanaka moom bu dee wér gu yaram moom li ci bëri ci ay rëq-rëq kenn kenn waxatu ko sànq limal naa la secteur yi nga xam ne daanaka fi mu toll nii dañu nekk ébullition muy loo xamante ne dëkk bee ngi tàmbali grève fii grève fii loolu aussi bu fekkee ne koppar googu fi grève non benn ah. grève nga fi dégg non defal naa moo tax ma la da nga caractériser mm-hmm. benn préavis fi dégg SDE société privée la non dafa nank damay préciser xam nga mhm. loolu lañ dul préciser mhm. SDE société privée la. Mm-hmm. état bi joxe société privée. du mm-hmm. société état. Mm-hmm. ña fay liggéey am ñu am concession service public liggéey ba ñuy liggéey service public la. état bi jël concession bi jox ko beneen société. ñu doon liggéey foofu ñu war leen jël ñu ne non ñun dañuy chantage parce que ñun ñu fiy liggéey société bu bees bi dañuy jox 15 pour cent ci capital bi. sinon ñu coupé ndox de l'eau et de l'assainissement non il faut tamit ñu leeral loolu. ñu wax leen ay liggéey yoo xamante ne jëluñu ko ba ñoom ñu jël décision dañuy dañuy grève donc déposer seen ah, seen plateforme donc ñooñu aussi état am na ci responsabilité c'était juste une précision tout à fait mais man dama pour que problème bu nekk mhm. di am ñu koy wax benn souci rek laa am mooy sénégalais bi ñuy déglu ñu jéem ko faram-fàcceel. tout à fait moo tax ma leeralal la allez-y mhm. da nga ne ma grève. Mhm. man la benn grève laa fi déggagum ñu annoncé ko muy SDE ci ndox mi. man la man la problème mu SDE société privée la. boo xam ne nii ñoom seen concession jeex na ña fa doon liggéey beneen entreprise bi di leen jël ñu ne non ñoom dañoo bëgg entreprise bu bees boobu jox leen ci capital bi fukki pour cent ak juróom. état amu ci responsabilité. amu ci responsabilité ne su loolu ñoom pour ñu négocier dañuy jël chantage population yi. Mhm. ce qui une violation parce que loolu yoonu état nekku ci. yaa ngi dégg. donc grève bi da nga jàpp ne dañuy chanter dañuy chanter la population bi. mais loolu la pour. on demande du contrat d' exploitation. au lieu pour cent. de Suez de Suez. de l' nga ne nga ne yow loolu dañuy dañuy dañuy dañuy euh, yi la ñuy chanter la. mais oui. alors euh, puisqu'on c' est la vérité yaa ngi wax ne ñoom kese ñooy. alors alors syndicat d'enseignants supérieurs laissez-moi terminer indicateur ñoom aussi ñoom aussi dañu fas yéene banque seen loxo le 4 décembre te li ko waral bokk na ci ay université yoo xam ne tabax bi parewul bokk li nga xam ne mooy jumtuwaay équipement ak ci seen laboratoire de recherche ak yeneen loolu aussi du fekkee ne chiffres yooyu nga cité léegi sentiruñu ko ci domaine yooyu aussi moo tax ñu lay laaj mën nañu sentir ndax ça pose pas problème xam nga man dama bëgg réaliste mhm. ñuy wax li mën a nekk mhm. Sénégal lañ nekk néew ñu ba léegi même dans les pays développés il y a des problèmes néew ma Sénégal enseignement supérieur amul problème wala lépp mat na mais tey est-ce que ñi yor nguur gi est-ce que ay effort ñu ngi koy def Sénégal tey par rapport parce que bu ñu buggee former jeunesse bi. il faut ñu yokk infrastructure yi ñaata université lañ tabax ci juróom-ñaari at yi. Sénégal ñaata université la am 1960 ba 2000 ñaari université ñaata université la am 2000 ba 2012 ñaata université la ñu yokk 2012 ba 2019 loolu mooy progression Sénégal 2000 ñaari ñaari université la am. Sénégal 2012 4 universités la am Sénégal fi mu toll nii ñu ngi ci pratiquement 10 universités. waaye. ñu ngi ci no defal ndànk xam nga. xam nga réew non defal ndànk. xam nga réew bu dee yow. 2000 1960 ba ba 2000 40 ans ñaari université nga am 2000 léegi 20 ans am nga fi lu mat fukki université. am nga fi lu mat lu lu mat fukki institut d'enseignement supérieur professionnel am nga ay collège universitaire am nga professionnaliser nga euh, l'enseignement def nga fonds de financement de la formation professionnelle uh-huh. alors bu fekkee ni réew moom yaa ngi koy def ci éducation am na ay jéego maintenant nonobstant mën na koon ne am problème ci ense ci ci ci laboratoire fii si on est à la rentrée dañuy poser problème yi mais ce qu'il faut constater mooy programme bi nga xam ne nii am na président Macky Sall di ko dawal am mu nekk eh, loo xam ne nii dafay jëmale réew mi kanam parce que bilan xam politique moom sanction bi mooy élection yóbbu na bilan bi renouveler nañ ko mandat bi à cinquante huit pour cent. Mmh. proposé na programme bu bees bu nga xam ne nii tey mooy yeggali. Sénégal équité. d'accord Sénégal ñëpp am accès universel. ci courant côté accès euh, universel ci ndox accès universel ci soins de santé. waaye eh, ci santé boobu nga tudd sax gis nañu ni que ministère euh, santé budget bi nga xamante ne moom la ñu koy jébbal dañ ci wàññi 7 milliards. alors gis que gis nañu urgence yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir mën nañu ne sax fii ci Sénégal la santé est malade nan la ñu mënee expliquer loolu. mais xam nga budget. Euh, loolu explication mën na simple effort mun na nekk programme bu jeex mun na nekk parce que xam nga booy tabax infrastructure euh, programme de financement am na tey euh, ci benn programme bu ñuy def buy jeex état bi bailleurs yi mën a indi trente milliards. état bi indi dix milliards. su fekkee ci yu mel noonu dafay indi ci sur une année une autre nga am tey investissement exceptionnel ci année bi investissement boobu fekk na année bi si topp mu jeex loolu moo koy indi comme par exemple mun naa ne euh, daaw. ñu ne tëg machine radiothérapie panne mais budget bi ci biir année bi dañu def loi de finances rectificative yokk ci 22 milliards ci budget ministère de la santé. Mhm. pour jënd ñaari machine radiothérapie. Mhm. bu fekkee ne année bi ci topp. machine boobu jënd nga ko donc loi de finance rectificative bi dañ naan la budget bi daaw ñaata la woon mais année bi parce que machine yi jënd nañ ko ba pare c'était pour donc loolu moo loolu mooy expliquer sur d'une année sur une mun nga am variation sur budget 5 milliards 3 milliards 10 milliards c'est aussi simple que ça. voilà xam nañu leen ci di di tiire ci ci ci régime bi alors tey est-ce que amul quand même yenn yoo leen jàpp ni ko ñoom def nañu ko yu positif. Euh, non on ne tire pas sur les on dit les vérités. en tirant. non on tire pas. parce que li am la ñuy wax. musuñu mhm. fi wax loo xamante ni dañu tee ci loxo nañu amul. Mhm. donc euh, on tire pas quoi on on donne okay. des vérités. ñoom lii ñuy nëbb bañ askanu Sénégal xam ko ñun yooyu lañuy wax moo tax du ñu mës a ànd ak ñun. Euh, xam nga jafe na ngaa ànd ak Macky Sall euh, pendant ñaari mandat yi mu def yëpp ak bii mu entamé nii. difficile na pour nga ñëw ne lii la tàmbalikat baax na buñ dee jël idée ci wàllu doxalinam ñu jël PUDC exemple l'idée du PUDC est bon l'idée est bonne du moins mais doxalin bi à chaque fois foofu la ñuy amee problème parce que doxalin li ko lal mooy gis-gis vision. mm bu fekkee ni yow sa gis-gis dafa yem ci diggante ñaari élection wala ñetti élection cest à diggante élection yu ne fa nga natt sa gis-gis mooy li ñuy li ñuy li ñuy dab nii tey jii bu waxee ci wàllu santé que ni def nañ ci 200 euh, milliards moom lañ ci prévoir et que santé ci wàllu classification ministère yi ci wàllu dotation de moyens la santé occupe la septième place donc tey jii euh, kon dinañ xamal que ni santé du priorité ci ñoom moo tax yàggul dara un pharmacien dem ci hôpital ñu téye ko fa maanaam le temps que ñu koy faj matin bi mu fa dem bu ci guddi gi ñu koy soog a faj defar ko ay traitement balaa ñuy pare mu génn mu ñàkk bakkanam mhm. xam nga yooyu ci nag ci hôpital boo xam te ni dañ ne hôpital régional la donc imaginer ci zone yi nga xam ni amul hôpital kon nan la fa war a demee donc santé moom. dañoo laaj da nga ku ko jël classé ko ci wàllu priorité ci investissement yóbbu ko ci septième place yaakaar naa du du sa priorité donc askanu Sénégal ñoo ci nar a sonnaat parce que fii ñëpp gis nañ que ni la santé coûte cher di nga boo demee ci euh, les pays développés bon wala ñi nekk en voie de de de développement yaa a ce qu'on li anglais yi tuddee le basic needs c'est-à-dire les les besoins primaires état. lu mu tële tële tële tële tële les besoins primaires là war na ko euh, accorder peuple mhm. mooy bëgg lekk lekk bëgg faju faju bëgg jàng jàng am sécurité ma wax la ci ñeent yii nii ma liim wax leen ma ci ban rek moo ci dox. non yow la ñuy laaj nga wax. non mais sénégalais xam nañ. Mhm. ça veut dire que basique nit si yooyu noonu ñuy wax. Mhm. sénégalais yi xam nañ ne sax amuñu ko parce que tey jii ci wàllu sécurité. boo waxee ñu ne la non mënuñu nekk ci état amul benn réew boo amul insécurité d'accord mais nag quand on voit que ci banlieue fii nanguwoo génn 19h 19h nga dem ci corniche bi mu fees dell ak i gendarme ki policier ça veut dire que dafa am ñu ñu protéger am ñu dul protéger. Mhm. donc injustice injustice sociale dafa dafa nekk lu caractériser seen gouvernance moo feeñ ci santé moo feeñ ci jàng bi. moo feeñ ci wàllu dund gi. donc su ma la déggee en résumé depuis bi ñu fi toogee ba tey defuñu dara lu baax. non euh, euh, ñun de jàpp nañ ni parce que réew moo def lu baax ci sept donte ni ñaanoon nga ni da ngay def juróom mais faf sax nga forcé def juróom-ñaar. Mhm. ci sept ans les mêmes problèmes maanaam yow da nga ne da nga yor jàngoro dangay faj ne da yor nit ñi dañ yor jàngoro Sénégal dafa am jàngoro. Mm-hmm. nga ñëw 2012 taxaw ne maa yor garab gi antidote bi maa ko yor fal leen ma ma defar ko. Mm-hmm. ñu fal la 2012 ba 2019 sept ans après huit ans bientôt les mêmes problèmes demeurent kon war nañu wax lan nga faj est-ce que waroon faj bopp buy métti dem faji tànk. wala nga war a faj ndigg dem faji loxo. Mhm. donc loolu yëpp nag li ko waral mooy vision. Mhm. vision Macky Sall xam nga mooy lan li ma ko tuddee sa nouvelle matrice fair payer aux Sénégalais ses volontés et désirs. <laughs> fi mu nii ñun loolu la ñu nar a fay. Mhm. parce que volonté am ak désir am moo nekkoon force day am deuxième mandat ak lu mu ko mën a jaral. moo xam muy tëj sénégalais muy tëj ay hommes politiques tëj adversaire am. ñàkk wax sénégalais yi li am ci situation réew mi te dab leen tey. Mhm. vision boobu nag volonté mag désir am boobu noonu ba taxoon mu sumboon ci la mu am lépp ci alal ak ci ay nit. tey nag moom la ñuy fayeeku mooy sa nouvelle matrice boobu. voilà euh, foofu sax lañu koy la ñu koy daanalee xam xam naa ni gënoon mënoon nañ ko gën a yaatalee foofu mais malheureusement waxtu bi ñu cërale woon moom moo ñu xoj xafoor euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo. ah man mi nga xam ne ni <coughs> dama dama xaw a yéex a yegg si dama <laughs> sëñ Ousseynou li muy wax yëpp. Uh-huh. dama yaakaar ni si si généralité xam nga sénégalais yi xam nga le discours. ci tënk waaw ci tënk mun nañu nekk dans la critique. Uh-huh. critique constructive. xam nga discours bi li koy li koy li koy indi li koy dëgëral mooy au moins boo toogee Sénégalais yi nga ni juróom-ñaari at yi amul lu fi nekk xam nga tey Sénégal de tous. Sénégal pour tous moom mooy devise président Macky Sall mooy Sénégal ñun ñëpp ko bokk Sénégal li ñuy liggéey pour ñëpp la équité sociale justice social dafa nekk ci li nga xam ne nii président bi ci li mu mébét ci histoire am ci ni mu bindoo ci parcours am ci fi mu jóge mm-hmm. ak fi mu toog sensibilité sociale boobu gëw ma ni président yi fi jaar yëpp am nañ sensibilité sociale boobu xam lan mooy ndóol xam nit ñi ci kaw gi nu koy dundee loolu moo indi PUDC loolu moo indi promo promoville pour indi équité. loolu moo indi non defal nànk loolu moo indi. Ah, puma te loolu moo indi li nga xam ne ni une révolution sociale. tey plus de cinquante milliards ci budget. Mhm. cinquante milliards xaalisu état dem ci bourse de sécurité. familiale euh, sociale nga xam ne merci beaucoup waxtu bi moom moo ñu xoj. waaw mais euh, mais vraiment yow itam jaajëfal bàyyi la nga tàggatoo. infrastructure Ousseynou boo jógee fii di dem Touba di def. Euh, ah, une heure trente nga jóge fii di dem di dem de temps embouteillage yi nag mënoo dabu temps bi nga ah, bi nga bi nga perdre au début Ousseynou merci d'être venu ñu bàyyi la nga tàggatoo. fi mu toll nii boo ko joxoon guddi gi yëpp. nga tàggatoo sans euh, xam nga da ñoom dañu sonn parce que euh, dañu xam ni Sénégalais dañu xam ci liñ nekk. donc mais man li ma jaaxal rek mooy. xafoor bi ma daan dégg mu daan dal ci Macky Sall lu yàggu rek bu ñu tëjee ki Abdoul Aziz Diop. muy kaas donc xafoor bi tey donc. <laughs> voilà foofu la ñu koy tëjee parce que flash d'information bi mu ngi xaar donc ñu ngi jaajëfal bu baax a baax suñu ñaari invité yi nga xam ne doyaluñu ko ça se voit mais merci d'être venu di jaajëfal également Fatou Abdou Ndiaye ak Fatimata Diop jox leen rendez-vous ñun demain incha allah même heure ñu bàyyi leen ak flash d'information.